Assalamualaikum mbokki internet yi ginaaw bañ leen nuyo ñi ngi leen di jaajëfal ñu andaat ak yeen ak Ousmane Tunkara ci cadre yi nga xamne ne yëkëti nako jëmele ko ci Adji Sar muy xam la ne ki nga xamne ne di Adji Sar day jënd ak ben rapport bu si wu fi ci réewum Sénégal té rapport bobé jot nañoo gisé té rapport bobé néna ku jégué njiitu réew mi Macky Sall la wala ñi ko and ak mom kaddu yoy nak Ousmane Tunkara yëkëti nako tay bi mi def live am bobé dañu and do diglu kaddu nga xamne Ousmane Tunkara yëkëti na mi ngi doxaanante ak ben rapport bu siiw ci Sénégal

pour ma wax la loolu exclusivité la waxuma ko maa koy soog a wax nii léegi benn rapport bu siiw ci Sénégal léegi foofu foofu Ousmane euh, du ma la bàyyi nga génnee fa noonu du euh, ma la bàyyi génnee fa noonu rapport boobu lan la activiste la wala mi ngi wéy di rap ba léegi wala lu mu demee noonu ma jox la ay initial parce que aussi dama lay respecté tuuti léegi nag dinaa leen bàyyi li ci des ngeen xam ne rapport yëpp seen i ay initial mënuñoo niru N bee billaahi wallaahi tallaahi lazim billaahi wallaahi tallaahi lazim Adji Sarr mi ngi jëflante guddi yi ñu toll ak benn rappeur rappeur bi jël na ko am na fu mu ànd ak moom te duñ ko weddi buñ ko weddee bu ñu defee démenti rek après man di dinaa génne ay éléments ak adresse juste parce que man bëgguma di di di di di toog ci ay vie privée yoy intéressé wu ma guddi ñu toll mais dama lay wax tellement que Adji Sarr elle n'est pas honnête. jere ngeen jëf mbokki internet yi kon kaddu tu ngor yoy ñoko deglo no muy kaddu yi leral yo xamni ni nii na ci mom jëm ci sénégalais yi mom nak ma ngay leral ni Adji Sarr day génn ak ben rapport bu siwa siwu bi nga xamni ni nii Macky Sall trop wala nguuram gi kaddu yoy nak ma ngi ko yëkëti ci bami live tu ngor nak kaddu yoy la mujjee yëkëti ci ginnaw bi mi live jëmale ko ci Adji Sarr